jërë ngeen jëf yéen mbokk yi ñuy bàyyi xel ci Equivox TV seen émission ganu Equivox dellusiwaat tey euh, génn nag euh, ci ni ñu daan faral di gisee tey nag dañu seet si koo xamante ne bu ñu nee amateuru làmb moo leen jiite di Doudou Diagne Diecko waaye ci ginnaaw loolu xam ngeen ni euh, ci élection locale yi ñu jëm mu ngi ci liste ñii di waa Sénégal 2035 te Mame Mbaye Niang jiite ko ñu yootu ville bu Dakar. ma ca biir du ñàkk xëy na dinañ laal pàcc boobee ñeel wàllu politique jëm ci moom kilifa ginnaaw bi ñu la nuyoo euh, laaj bi njëkk jëm ci làmb ji te ñu koy coow jamono ji bokkoon na diggante Papa Sow ak Siteu la ca xew yëpp xew ci dégg nañ tax tey ci taskatu xibaar bi ñu xëy di wax ni Siteu mu ngi wax ni dana dem ca kër Pape Abdou Fall laaj li nga xam ne mooy cachet ginnaaw bi ñu leen teewloo ak lañ ca wax yëpp ci fiñ ci mujj nii. lan nga ci jàpp ak loo ci bëgg indi ci ay leeral ginnaaw li ma la li ma la joxoon. maa ngi leen di nuyu di nuyu mbokk internet yi. xam ne yow sax amateur nga. <laughs> waaw loolu amateur nga ngeen amateur ngeen. <laughs> wax nga dëgg. moom <laughs> may nuyu Babacar. comme mhm. moom. waaw suñu la bokk. dëgg la maa ngi koy nuyu xale bu yarul na. bu dëgg yàlla fonk liggéeyam. maa ngi mhm. nuyu maa ngi mhm. di la encouragé. di ñaan sit bi yàlla yokk ko. min bi ba fu mu bëgg àgg ngeen àgg fa. te mu jig leen ci barke yonent bi. sallallahu nga may ma nag ma jaale. Mhm. koo xam ne kilifa gu mag la woon ci réew mi. Mhm. def ci lu bari sport. muy El Hadj Lamine Diack ma koy jaale mhm. njaboot gépp di ko jaale Massata Diack. doomu ak seen njaboot gépp. di ko jaale aussi Maître Sarr. nga xam ne moom it avocat mag la. doon jàppale Lamine Diack ak Massata. muy sama xarit. di ko jaale képp koo xam ne jaraaf nga ne. Hmm. wala ngay monde sportif. di ko jaale président de la république. Hmm. di ko jaale aussi Matar ba ministre des sports. di ko jaale tous les fédérations. Hmm. képp koo xam ne yaa ngi bëgg sport. di ko jaale kilifa diine yi. parce que ku nekk amal naa ak moom. jàmm di jaale tamit suñu bàyyi Ibra Diop nga xam ne moo ñu yar si làmb. nekkoon fi président amateur ma remplacé ko. maa ngi koy ñaanal. yàlla xaare ko àjjana. di ko jaale njabootu làmb yëpp di ko jaale ay famem di ko jaale it mag ñi nga xam ñoom la àndaloon. di ñaan yàlla xaare ko àjjana. amiin yaa rabbi. di jaale suñu benn xarit bu ñuy wax Moustapha Tafa Gujaabi. dëkkoon Ridis nekkoon fi ménager ñoom musiciens yu bari. moom it euh, vraiment ñu ngi koy ñaanal yàlla na ko yàlla xaare àjjana. bokk suñu mouvement. Ah, nekkoon si liste bi. pour amitié. maa ngi koy jaale ñëpp di ko jaale Sénégal gépp di ñaan yàlla xare ko àjjana. yal na yàlla teg si njabootam. loxo hmm. ci barke yonent bi salaay salaam. waaw di nuyu nag njabootu làmb. Hmm. di nuyu président CNG président des ménagers président écrit président des lutteurs di leen nuyu ñoom ñëpp di leen ziare di leen xamal ne nag euh, ñu ngi leen di ziare di leen jéggul. di hmm. jéggul amateurs yi. waay parce que keroog ba dëgg yàlla làmb ji amoon. kenn bëggul woon loolu am moom nga ma laaj léegi. Hmm. kenn buggul woon loolu am. li waral loolu am nag noonu loo xam ne si enceinte bi la parce que bi Siteu ñëwee mënoon nañ ko jox ay ndëndam mu jege ko am na buy bàkku mu bàkku si wetu ndëndam Papa Sow bu ñëwee tamit ñu teg ko foofu moom it mu jege ay ndëndam. Hmm. nga xam ne jaabante bi du am. du am loolu ah, xëy na CNG dañ si bàyyi xel yeneen combat yi di ñëw. ñu am niñ ko tegee ba nga xam ne kenn du laal sa morom kenn du dem si sa sabaru morom. Hmm. Ah, li am aussi tëggkatu sabar man tey laa ko mu sa gis mu dóor mbër. ndënd waaw xiin daal dama yaakaar xiin pour yëglee la woon wala tëgg mu neex. waaye du pour nga dóor ko adversaire sa adversaire mbër. loolu ñu koy ñaawlu lool parce que violence kenn buggu ko. ñun làmb xamuñu violence. jàmm lañu xam. seetaan suñu làmb mu jeex ñu dem ñibbi et nekk ay sportif hmm. loolu nag léegi jafe na si làmb parce que am ñu fi ñëw di ko seetaan te bokkuñu si woon te loolu xam naa ne CNG si jël ay mesures ku bëgg a yàq suñu làmb ah ñu defante ko yow mooy ni kon ni nga gisee responsabilité yi ni ko situé dafa des. ba léegi. ci hmm. coow lii. lan ngay xaar dëggantaan. non ñun lu ñuy xaar rek mooy am na suspension bu jénn CNG. Hmm. ñun amateurs yi mënoon nañu def génnee kooku à vie kii wartu seetaan làmb wartu te loola waroon moo waroon parce que tey ku dóor koo xam ne yow sa yoon nekku si mën nga ko dóor mu dee mën nga ko dóor leneen mais bu dee CNG dem na ba di ko suspendre war na ko mën a suspendre à vie nga xam ne parce que tey boo jénnee làmb ji am na incident yu am yoo xam ne looloo ko indi te bu loolu amul woon loolu du ko indi. Hmm. du dëgg kon nag kooku dañ ko waroon interdit làmb mu bañ a seetaan làmb te ñun amateur yi sax dañ def appel pour wan ne CNG kat décision yi nga jël ànduñu si kii dañ ko war a suspendre mu bàyyi làmb à vie. di suspension boo xam ne dafa yem rek ci waxtu. ci ay temps ci ay. kii non du yoon dañ ko war a à dañ ko war foto ko nag. foto ko ba mu leer nañ nit ñi xam ne kii dañ ko suspendre à vie ku ko gis si làmb nga woo police ñu jàpp ko yóbbu. suñ defee taxawaay bu mel noonu lu muy wàññi ci ci ci ci. non li muy wàññi mooy keneen dootu ko def xam nga benn nit ñu mamba la wan na réew mi yëpp yow laa def lii nee nañ foo bi am muy làmb muy sa cosaanu réew dootoo fa dugguti mais xanaa beneen yoon nit du ko def loolu mooy yoon. est-ce que yegg na ba ci tamit entourage yu mbër yaa ngi koy wax sànq ñu xoolaat ñi ñuy àndal ci ci ci làmb parce que souvent dañuy gis ne bu ñu yeggsee ci biir làmb ji dañu mel ni ñu surexcité nekk àndatuñu seen sago dafa mel non du loolu du question àndatuñu seen dafa am ñoo xam ne du ñu nitu mbooloo waruñu dem si mbooloo hmm. dafa am ñoo xam ne am na mbër yoo xam ne xam nañu ñuy yàq seen làmb dañ lay wax carrément yow doo dem làmb bu ma yàqal man damay bëri pour am alal damay bëri dundal samay njaboot du ma nangu nga may yàq benn làmb tel téléphone nga tel ba ñu dagg ma nangam kon tey doo dem làmb am na mbër yoo xam ne dañuy sippi ñiy ànd ak am na mbër yoo xam ne xamuñu jikko ñi ñu àndal bu ñu defee dara tant que defoo dara duñ ko xam tey li ni mbëru Siteu bi def. li hmm. tëggkat sabar sabar bi def. xëy na beneen tëggkat sabar du ko defati parce que xam nga benn nit ñu won la si sit yëpp naan yaa def li yaa def li laa loolu dafa ñaaw. dafa ñaaw euh, ni ñu waxee ni dañuy tëggaat làmb ji nag mu mel ni ñoom bëri sawaruñ ci en tout cas ci liñ feeñalagum lu war la ci décision boobu bàyyee ko ci seen CNG. parce que décision boobu CNG moo ko jël ñaari solution moo amoon làmb ji àggul. gis nañ fi Balla Gaye ak ki nga xam ne mooy nees. Mm. ba Balla Gaye am am gaañu si làmb ji bëriwuñu dañ ko annulé. Mm. bii tamit c'est la même chose CNG jël na ay décision ne du bëri bu ñu bëreeti. wala dañ ko war a bëriwaat. waay ah, waaw nañ ko war a bëriwaat kay nañ xaar ñu bëriwaat. ci loo ànd la. bu waree ah, bëriwaat waaw naa si parce que CNG moo fi bu àttee vraiment làmb amu fa te aussi ñun amateur ñàkkaat rek ñooy daggaat billet. pare fekkee dañ koy bëriwaat il faut billet bi yomb cinq mille il faut mu bàññi ndax amateur bi tamit mën a daggaat billet mu am intérêt. mais bu dee ñoom dañ koy defaat même prix même billet. Hmm. du yoon c'est pas normal. te war nañoo bàyyi xel ci loolu. waaw war nañu si bàyyi xel. Siteu mi wax ni dina jëli kopparam ya ko dese nag ca Pape Abdou Fall. waaw xam nga xaalis yu mu ngi CNG. ci niñ ko xamee moom avant ngay bëre vingt quatre heures. xaalis bi na fa ne wala déet. xam nga si dara. waaw xam <laughs> damaa yaakaar. <laughs> kon defe naa ne ñëpp xam ne xëy na xaalis bi ma nga fa. Hmm. li ñu yaakaar. Hmm. bu fa nekkee. ménager bi CNG la war a dem laaj xaalisam. Hmm. bu dee xaalis boobu la. bu dee nag dafa am xaalis boo xam dessous table la wala leneen la. Hmm. wala sponsor la seen diggante demul CNG xëy na mun na ko laaj Pape Abdou fa waaye nag yoon dafa am si dëkk bi. je hmm. pense que yaramama tàng rek xalaatuma mu dem kër nit di fa fayeeku parce que am na loo xam ne yoon da koy tere. nga dem kër jàmbur dugg fa wala def fa leneen. boobu waa xëy na. kooku moo lay topp de yow waratoo ko topp. te loolu war nañ ko mën a bàyyi xel. war nañ ko mën a bàyyi euh, fi làmb toll ba léegi ci violence yi ñuy wax ni li mu koy yàqal moo ëpp la mu koy jural ci ay njëriñ euh, euh, am ñu bëri jàpp ne xëy na war ngeen xoolaat seen bopp ëxlu làmb war na xoolaat boppam dëgg ci fiñ ko bëgg a yóbbu. xam nga xam nga dafa am ñoo xam ne. Hmm. làmb rek lañ compte. Hmm. waaw. parce que problème bi warul am rek ñu bugg ko jël réyal ko làmb dafa am violence chaque jour làmb gëj na am xeex gëj na am xulu ah, làmb ju mag la plupart sàcc yëpp événement yu mag si man événement bu mag bu amee wuyu yëpp ay dem bu doon concert wuyu yëpp dem bu doon football wuyu yëpp dem événement yi yoon gàmmu yaa ngi nii kuy dem ba Touba di sàcc wala di jëm ay nit pour jël alalam hmm. wala nga dem Tiwaawan wala nga dem Thiénaba wala nga dem euh, Kaolack Medina Baye wala Léona Niassène kon kay nit ñi bàyyiwuñu fenn ismaak lu ñu ut yàlla yow ngay ut sa poosu jàmbur jam nit pour jël alalam mais nañu wax ne wala oto bu paan si àll bi nga ñëw agressé jël seen alal dimbalu leen ñu jàppaane loolu ku si ni si nit ma waxuma ak làmb hmm. ñun de chaque jour dañuy ñaan rek policiers yi gendarme yi ñu gën a dolli ñu gën a dolli sécurité bi. ñu gën sécurité parce que am na ay affiches yu ñuy xaar. ci ñu jëm nga xam ne tey ñii nekk si mbedd mi di xaar pour agresser ñu wala nekk si koñ yi di xaar làmb ji tas ñu dem police dimbali ñu si ak gendarmerie. yow foofu nga bëgg ñu jàppee ko waaye da nga ci ginnaaw dafa am ñoo xam ne dañuy xeex làmb. yu mel nii rek la ñuy xaar ngir ñoo ñaanal parce que ñu am am na ñoo xam ne tey. ñoo la dàq wax rajo ñoo dàq dugg site yi. di wax n'importe quoi làmb dañ ko war a tëj làmb ji amul fi njariñ làmb ji nangam ñoom mënuñu am ñaar dërëm ci làmb ñu am ñaar dërëm si mbedd bu ñu amee seen 1000 francs jënd seen gi dugg si euh, réseaux sociaux yi di xas ay sëriñ di wax nit lu bon di wax nit lu ñaaw loolu ban njëriñ la am yow kay jéemal ut liggéey am ni waa ji am mbër mi day fayeku mbër mi sàccul hmm. promoteur day investir pour am dara jaagur jëf caaf ba am dara pour dimanche am na kuy liggéey si làmb sax dimanche mu am junneem bu mu yóbbu këram dépense wala déet. Hmm. wala ñaari junneem yow jéemal mel ni kooku te nga bàyyi di wax lu ñaaw amul njëriñ. donte xam nañu tamit am na ay rëq-rëq yu muy indi moom làmb wax nga ko léegi. non ci jafe-jafe yi nga xam te ne jot nañ ko waaw. ñun agressé wuñu kenn agresseurs yi kay ñooy ñëw suñu làmb tas ñu ànd ak peuple bi di agressé. mbër yi indiwuñu ay agresseur xamuñu sax ñuy agressé donc ñun loolu la mais police ak gendarme yi ñoo ñu si war dimbali. d' est ce que yooyu yëpp parce que ñu jëm ci local yi euh, faaw ñu laal ci pàcc boobu Sénégal 2035 ci wàllu programme ci wàllu sport euh, le fait que ñu gis la nga engagé wu ci biir politique ndax da ci gis lu la doy luy tenir en en compte aspect làmb la ngeen ca bëgg ya ca aju ba tax nga ànd ak waa Sénégal. 2035 waaw lu tax ñu ànd ak Sénégal dañoo gis ne maire bi dimbaliwul sport bi te budget la gu ñuy voté pour sport li ma gën a metti nag mooy tournoi CEDEAO am fi ñu bind maire bi pour mu jàppale leen maire bi bañ te tontuwu leen loolu tax na ñu war a dem ñun bokk deux mille pour xeex loolu Sénégal deux mille trente pour sport bi du làmb rek de. Hmm. équipe bi dëkk Dakar jaraaf Jeanne d'Arc bopp dig. Hmm. ñëpp dëkk dakaar képp ku def sport dëkk dakaar boo amee événement final wala dara wala tournoi Coupe d'Afrique maire Dakar jàppale la gis ci loxo. seen mbokk journalistes yi nga xam ne ANPS dañuy tukki. di ànd ak ñu jàppale leen. ñu gis seen bopp ville de jox leen chèque bu am solo. mais ville de Dakar day jël xaalis dix millions may benn euh, fecckat ah musiciens yi ñu nga jëkk di keneen. mais nag gis nañ gendarme de Dakar de trente millions. bi ñuy waajal seen compétition au niveau africain. Euh, loolu kañ la loolu def si war na def euh, lan ci ci saison bi la. saison bi ñu génn euh, jaraaf la wala jaraaf jaraaf. jaraaf moo leen jox trente millions. madame la maire. mais trente moo leen jox trente millions yoo xam chèque. maa ngi ko gis nii waay waay loolu dafa tuuti. mais au moins geste bi laa. non mais non ma wax dafa wax e jaar na fi te amuñu a ñu jox ñu ñu dërëm bu ñu jaraaf trente millions dem sàmm. tournoi coupe d'Afrique trente millions dafa tuuti si jaraaf billet yi rek xanaa mun na am pour trente millions et ci billet. au moins contribution. non contribution non boo contribution day am njariñ. Hmm. au moins nga jox ko cent millions. wala jëlal ko nangami billet ak ak ak hôtel am. ville de Dakar nga wax quand même. Ah, bu dee sax budget bi ñaata milliards. waaw plus de cinquante milliards. peut-être 47 milliards xam nga 45 milliards loolu loolu loolu la nga ko xeeb. non xeeb ma ko mais. dama wax ne waaw continue yooyu xawaare. xawaare. waaw. da nga naan culture lay jàppale. am culture. ma ne. théâtre kat yi gisuñu seen bopp si maire bi dëkk Dakar ñuy hmm. théâtre dëkk Dakar ñu si bëri gisuñu seen bopp si maire bi. Hmm. moo tax ñun ñu bëgg a ñëw. fii ngay gis homme de culture. Hmm. nga ne culture. ku feebar fii ñu koy yelwaanal luñ ko faje maire bi mën ko jël en charge am na xaalis yoo xam pour santé la nga jël ko en charge parce que ki lay reeloo nga mer mu nga koy seetaan télévision mu lay reeloo amoo njëgam bitim réew foo dem. mais ana foofu ministère de la culture. le statut de l'artiste waaye taxawaay bi ñu war a am. ministère de la culture à part kooku gouvernement la. mais commune bi euh, dina am manifestation bu am artiste boobu ñëw bëggal nit ñi bëggal xale yu ndaw yi bëggal mag ñi ba dem hôpital sa fekk ku feebar sax mu bëggal la ba nga wér. mais est-ce que organiser woon nañu pour euh, jege euh, ville de Dakar pour am ci yooyu parce que. xam nañ ni fond culture urbaine am na fii ñaata yoo xam ne ñaata ni ñoo bind kenn du la tontu. ñun bërgi dem wax naa la ñun làmb bind nañ kenn tontuwuñu sax pour dimbali ñu ñaata nit ñoo fiy bind maire ba du la léegi yow pour yow Mame Mbaye Niang mooy saafara loolu. incha allah. mu bokk ci nguur gi. xam nga nag yaa ngi séddale. noo dama dama wax rek dama la ko rek. non nguur ak maire du benn. <laughs> loolu yi commune la ñun ñu quartier la ñoo ko moom. ville de Dakar dafa ñi dëkk Dakar ñoo ko moom. Médina ñi dëkk Médina ñoo ko moom. fas noonu y' a dix neuf communes. Mm. dix neuf communes yëpp ville Dakar mooy seen kilifa. kon nag la muy jël si impôt tax kenn jëlu ko. d'accord am na maire yoo xam ne ñii deux milliards mooy seen budget ñii deux milliards huit cent ñii trois milliards ñii douze milliards xoolal mairie plateau douze milliards. oui. ah. am lakk bu am fii wetu wetu wetu wetu rue Tolbiac foofu si kaw. wetu wetu wetu wetu fi ñuy wax euh, fi ñuy wax parc ak Kayfini. Hmm. benn cité lakk xam ñaar la leen jox ña lakk. ñaata. ku nekk ñeenti junni. vingt mille. ñeenti junni. ñaata lañu. parce que vingt mille moom. da ah, cent mille yi de. ku ah. nekk la am. calcul huit cent mille lañ leen jox. waaw bañ ko séddalee ku nekk vingt mille franc la am suñu candidat bi nga xam ne Abdou Khadir Gueye yorul dara nga xam ne moom. ndeysaan bourse yu bëri moo ko utal xale yi foofu hôpital yi di am machine problème machine mu indi leen di leen jàppale ba quartier Rebeuss plateau gépp ne ko yow yaa war a nekk maire parce que yow nekkoo dara yaa ngi jàppale dugal na fa sax un million rawee maire ba deux cent mille borom douze milliards moom maire Alioune Ndoye moo tax ma ne la yéen a bokk benn bennoo bokk yaakaar non man bokkuma bennoo yaakaar waaw ño déedéet ki ngay jàppale laa wax waa ki ngay jàppale laa wax defal bëgg nga déglu ñun bokkuñu APR. d'accord ñun yoruñu benn poste nguur. ñun lu ñu am ñoo ko ñàq di ko def si askan bi. ci te man bokkuma APR. <laughs> pour mu leer na leer ni midi suñu mouvement ay citoyens sénégalais nekk si quartier yi ku nekk di jàppale sa quartier ñu dajale suñuy bopp. liggéey ci référendum bi xool liggéey président mu neex ñu koy jàppale mais yor ñu carte APR. lu tax loolu lu tax ngeen choisir. bañ a dugg ci waaw ba ñu dugg ci parti yi. ngeen defee ko noonu lu tax waaw parce que xam nga mm. parti yi da ngay gis ñoo xam ne yow li ngay liggéey mënuñu ko liggéey ñu lay xeex. Mm. te yow yaa leen ëpp njariñ si réew mi am ñoo xam tey boo leen falee tey tey premier ministre. seen xarit dañ naan naanandoo attaaya sax dootu leen gis koo si woo mën naa la yónnee ma texto te yow chaque jour ngeen di waxtaan <laughs> xool yónnee ma texto wala yónnee ma texto loolu mosuma ko gis ñooy dañuy jàppale Macky Sall bu fekkee Macky Sall day ñëw seen koñ ñu dem seet waa koñ bi dix mille vingt mille trente mille mooy ñooy di leen pour ñu booy di leen tàccu bu jeexee taxu nañu jour bi ñu faloo deux mois trois mois toxu nañu si quartier ba ñu ngi bëgg a dëkk Almadi wala euh, plateau këru résidentiel fàtte seen koñ. mais ñi ngay wax nii ñoo Mame Mbaye Niang ñoo bokk benn partie bi. léegi nag lan mooy différence and Mame Mbaye ak ngay wax nii bokkul bokkul parce que Mame Mbaye hmm. ngor gu mu dëkkoon ba léegi fa la dëkk. Mame Mbaye Niang bari na tey. da ngay dox si dëkk bi ñu ne la damay jàppale Mame Mbaye nga ne ko lu tax mu ne la ah ba mu nekkee ministère de ma bind sama projet financé nañ ma mu ne ah man de loolu fàtte naa ko Sénégal moom alal ji ma du man moo tax ma financé leen da ngeen war a liggéey beaucoup de jeunes tey ak des femmes. Hmm. même des troisième age wala commerçant bu dem ba daanu amul pour dara banque yi jël këram ak yëpp mu fexe ba nga amaat puxus bu ndaw di liggéeyaat jàpp sa ñàmb ko ñooñu ñoo koy gërëm di ko sant waaye tey nga nekk ministre ku tabax këram tabaagoo ngële nga nangu nga toj ko kay jël ay ndaraan ñu raase ko mooy nangu loolu jaar yow nga ministre yaa ngi dimbali réew ku tabax immigré yi nga xam dañoo nekk bitim réew maa ngi leen di nuyu sonn ngeen trop ñu war leen dimbali ñu ut seen kër fii jënd terrain tabax nga ñëw jël ndaraan raase sa yaram dawul nga yow yaay ministre de la santé yoof gële di manqué ay garab da ngay meeru yoof manqué garab waaw da ngay meeru yoof loo waxoon waa yoof stade bi naa ko defar naa defar euh, kii social naa tabax lii naa dara ba sa mandat jeex nga naan nag léegi dakaar laay jël xanaa da ñuy rey boo jëlee dakaar ñu gën a dee di comme que yoof ngi dee ndox nga fa euh, euh, kii bi Euh, inondation bi ndox nga fa. Hmm. jéemoo ndox ma jéñ nit ñi di jëkkati di dox si ci ay xeer pour jàll nga bàyyi leen seen ndox ma dimbaliwoo leen. mënul matale lépp. xanaa balaa ngay balaa ngay moo moo Mame ma Niang ñoo bokk li ñuy liggéey matale wu balaa ngay matale. boo xoolee seen njiit li sax dañuy wax ni matale moo waral tey opposition bi taxaw. balaa ngay matale ne leen jóge leen fi ma ne balaa ngay matale. Hmm. nga def dara. matale kay. doo mun a wax ne Abdoulaye Diouf Sarr depuis bi mu nekk 2014 ba léegi maire ca yoo def fu fa dara. xam lan la fa def. toroxal yoo. toroxal. Mhm. toroxal xale yoo fi jàng mun leen dimbali bourse mun leen dimbali aide magu troisième âge yi faalewu leen yëgoo leen bërki dem gis naa ko mu toog mu ne day saaf gerte loolu la fa def programme bi nga gis fii dakaar maire yi def yëpp tabax euh, kii Promoville moo ko def Macky Sall programme président de la yi ñoom la. Mamba ñaar bu ñëwee ci lay wéy. déedéet xam nga la laa la yéene. ñun coppite mënu cee am. dama bëgg nga déglu ma. Promoville bi nga wax nii moo jaar ci commune yu bëri. waaw defe naa ñun ñun am nañu beaucoup de partenaires. moom la ñëpp di wax. ngor gi nga gis ngor. Hmm. bi mu lëndëmee ba lëndëm maam may Niang moo ñaan partenaire am ñu may ko ay làmp foofu yëpp di leer am na paa yoo xam ne daawuñu dem sa jàkk di julli ji parce que dafa lëndëm. lu ko ko tere woon lu partenaire am yooyu mu ñëw sotti ko. sotti ko fa ah Abdoulaye Diouf Sarr mi nga xam moom la président Macky Sall tànn. maam Mbaye Niang ak li ñuy wax ci moom yëpp tànnuñu ko. mu ber liste boppam. macha allah. tànn waaw tànn fee bu fekkoon mu waral lu tax. président tànn ñun ñoo ko tànn. yéen ñan. ñun ñii citoyen yi dëkk ci gox yi dëkk dix-neuf commune yi bokk fukki penc ak ñaar ñun. nga xam ne ñun Dakar bu ubbee bu ubbee ñoo koy ubbi bu tëjee ñoo koy tëj xam nañu ku ñu amal njariñ ak ku ñu amalul njariñ ñun ñoo ko tànn mu indi mu teg fee programme yoo xam ne macha allah. programme yi fi teg tey bu ñu yàlla mayee incha allah ñu jël mairie yow di nga sa bopp di nga ñëwaat si man nga ne ah. fu ngeen di jaar fan ngeen di jaar juróom-benn yii la. xam nga ñëwaguma ci Barthélemy Diaz ci opposition bi yéen dèjà seen biir rek ñoom ñu bokk ci Benno Bokk Yaakaar rek yéen a ngi nii naan Abdoulaye Diouf Sarr day saaf gerte day yooyu commencé ngeen kaa xalab commencé ngeen kaa xalab mais fu ngeen di jaar non Doudou Wade mu ngi fi Pape Diop attention nekkoon na maire dakaar xam na yoon wi euh, Barthélémy Dias wax naa la ko léegi. Euh, Barthélémy Barthélémy bu ko Dakar falee dañuy sonal seen bopp koo xam ne xeex lay def ñeenti at wala juróomi at di nga nekk si maire bi di xeex ak nguur doo liggéey. loolu ngeen di wax rek. non dëgg ma dëgg la dama la yëgal benn affaire dëgg la lu ma la wax ni dëgg la. duñ liggéey daf fi nekk di xeex a xuloo ñun taluñu xeex a xuloo taluñu rakk mo seen xam nga lu ñu tal bale Dakar mu set tabax Sandaga sànnaga gii. bu ñu gañee maire bi incha allah même pas quatre mois trois mois ñu woo ñu fa nekkoon waa Sandaga ñu waxtaan ak ñoom si signé protocole d'accord ñu commencé defar liggéey bi ñoom ñu mën a dem liggéey boobu ba léegi ñu ngi toj Sandaga defuñu fa dara. kooku responsabilité mairie la wala. ministère fu mu nekk responsable. di di ko Alioune Ndoye moom ñu moo ko toj di loo xam ne kenn waru ko toj. historique la dañ ko waroon reprendre mu dem mu dem mu dem mu dem tot lépp. léegi yéen da ngeen amee taxawaay ci loolu. yow mos gis yow man damay liggéey maire damay liggéey maire bi te du ma waxtaan ña fa nekkoon. maanaam. Ah, boo damay liggéey damay liggéey Sandaga xanaa commerçant ya fa nekkoon di leen woo ngeen waxtaan. waay. ah. waay mu ne du leen woo. tey Alioune Ndoye booy tabax sa kër yóbbu pour am autorisation construction dina fa def un an deux ans du ko signé. ndax la. laaj ko ko man na moom muy signé foofu boo fa nekkul kenn du signé ay adjoint ña nga fa amuñu droit signé am deful leen procuration signature bu ko neexee yow ngay fay ay yow ngay fay xaalis euh, lépp banque di fay lépp Alioune Ndoye def la loolu loolu rafet kon daal yéen daal Mame ñaa Niang moom moo mën a xetti Ndakaaru ci euh, Soham El Wardini ah kooku mag la macha allah ñu ngi koy ñaanal mu bàyyi maire bi rek xam ne Mame Mbaye <laughs> ah, moo war ñëw parce que moom gis nañ ne séddalewul lu bari hmm. ñu ngi nii wax naa la sport bi. ñu mu fi hmm. def barki démb lu ñu def. donc moom dañ koy ñaanal rek. Hmm. xëy na nekk na intérim maire ba mandat bi jeex na dem toog rek noppalu. bàyyi xale bi nga xam ne c'est l'avenir de Dakar. mooy kan. mooy Mame Mbaye Niang. da ngeen ko 2005 bi fan la yem. ah 2000 yéen local yi ngeen ngeen ngeen ngeen di yem seen xaritoo bi seen àndandoo bi wala. après après élection locale yi. 2035 fu ñuy yem foofu. ah foofu la seen kii di yem. waaw seen xaritoo ak seen àndoo. suñu àndoo. waaw moo ñu ñooy ànd liggéey Dakar. coalition bi duñ taw. bu jeexee. yow kay ñaanal ci liggéey waaw. wala dem ba 2024 laa bëgg a wax. wax. waaw ñaanuñu jàmm. yàlla nañu ko am fas yéene ñu tàggoo. Hmm. jël Dakar liggéey ko. incha allah ba beneen yoon. boo ma wooyee pour résultat yi ma ne waxoon naa la. waxoon naa la <laughs> buñ ci jógee législative yi tamit naka noonu. ba ci présidentielle yi. non non législative ñun bokk législative ñun daal communes yi la ñu xam ne incha allah. Hmm. war nañ leen defar war nañ liggéey dakaar ah deux mille trente cinq ñëw pour liggéey Dakar incha allah. ñu ngi lay gërëm di la sant kilifa gi. man dem maa ngi leen gërëm di sax di gërëm say caméraman di leen ñaanal gudd fan ak wér. di courage. Mm. merci. jërëjëf jërëjëf mu ngoog. di nuyu ah, di nag suñu mbokk bitim réew yi bitim réew yi waaw. di leen ñaanal daal yàlla may leen wërsëg. miliyaar xaalis bu bëri bu ñu ñëwee Sénégal gii. te di ñaan it yàlla yombal leen seen bagage yi. ñu taxawu leen. ñun nag yéen la liggéeyal. Mm. parce ngeen trop. ñu ñaan tamit seen soxna yi mu muñal leen. Hmm. xam ne yéen loolee am yéen ko indi si réew mi. Hmm, hmm. am na solo yal na leen yàlla ubbil wërsëg. defal ñu jàmm defal ko réew ñu ngi ñaanal ñëpp lu ñu juumee ñu ngi jéggulu di ñaanal Sénégal yàlla def fi jàmm. yàlla musal ñu si mbas mi. suñu làmb ji aussi avancé. suñu commune yëpp ñu ànd bokk ndey bokk bay. xam ne élection du xeex du xuloo. ku nekk àndal ak ki nga àndal. ku ñu wootee votel ku gañe ñu xam ne kii moo gañe xam ne ñu ñëpp ñoo bokk ndey ñoo bokk baay ñu de xeexlawuñu kenn mm. xulawuñu kenn mm. ñu ñëpp ñoo bokk ndey ñoo bokk baay dañoo ànd pour uti mm. ku nekk nag na uti bu ñu saagante bu ñu waxante lu ñaaw parce ñu ñëpp ñoo bokk ndey ñoo bokk baay wallaay am na solo ñu ngi koy gërëm di ko sant moom Doudou Ndiaye Diecko moom la ñu àndaloon di suñu gan seen émission ganu Equivox gërëm leen sant leen beneen yoon beneen gan yeneen i actualité ci Equivox TV